de Lampita. toujours dans votre journal people à la présentation c'est Seydina Tange Tandian une Saliou dañuy ñëwaat ci beneen scandale boo xamante ni yëngaloon na Sénégal muy scandale Miss Sénégal 2020 du kenn ku dul waa kaw bobu boobu di Fatima Dione ginnaaw bu mu defee sorti moom ci boppam ay kàddu bopam ak waajuram bu jigéen ñu xam leen que qui di Fatima john Miss Sénégal de ñëwoon ci benn colloque bi nga xamante ne amoon na fii pose première pierre stade bi ñu dippee pétain maître Abdoulaye Wade bi ñu paree organisatrice bi Amina Badiane de leen yóbboon ci hôtel Radisson bi nekk foofu rajo fa la ñu daje woon ak ay partenaire am turc bu mu yeewoo nag lax gis ni que ci moom egg nañu ci kawam ginnaaw bi ñu eggee moom ci kawam ay weer ci ginnaaw mu gis ni daf ci jëlee ëmba ba doom juddu woon ci jamono ju muy wax ne woon na doom ji mi ngi am juróomi eh, weer te xamuñu koy baayam te ëmba jooju mi ngi ko jëlee woon ci biir eh, événement boobu nga xamante ni kii di Amina Badiane yóbbu na ko fa mais dafa mel ni beneen scandale dafa jub dafa ñëw ci walu Fatima Dione dafa mel ni li mu ak li am mujjewul doon ben dafa mel ni Fatima Dione dafa yeboon askanu senegal ba yëkëti ay tuuma ak victimiser bopam pour mu jot ko ginnaaw bu brigade sukkandikoo ci enquête yi la brigade des mœurs de la sûreté urbaine a bouclé l'enquête sur l'affaire Miss Sénégal 2020 elle a déposé le dossier la semaine dernière sur la table du procureur de la République les policiers en sont arrivés à la conclusion que Fatima John, élue plus belle fille du Sénégal, il y a deux ans, a tiré son histoire de son imagination en clair. Elle n'aurait pas été violée. muy grave. Fatima John Guinée, bu ñu boucler enquête bi conclusion bi xamal ni ko Fatima Dione limu mu doon wax sénégalais yi dañ ko violer kon ken violer ko kon yakara ni Fatima Dione yeb sénégalais mo taxone taxoon boobu mu ne pat pataaral ba ñoom mamiko meroon ñu ne ki ñing koy génn diko défendre boobu ba tey génnul benn yoon wax je crois que mom xamone luy ñuul ci soow bi mais waxuko won dafa yëkëton benen kàddu bo xamanteni ni deug mais lolu yeb sénégalais dañu mënon mënoon sukkandiku ci waxam ndaxte mom mo jogon taxaw ne dañ ko violer fofu la ko jëlé bi mu ginnaaw loolu kii di Amina Badiane jóg minimiser viol boobu sénégalais yëpp ak ni ñi défendre jigen ak fi tek ak ko ak jigen ñu jog défendre Fatima Dione mais ndekete Fatima Dione cadre yu ma yëkkati won yëpp viol bu mu doon wax dara amu ci batay suñu sukkandikoo ci journal bi di Libération qui rend compte ce mercredi bi ñu génn de cette affaire trois éléments du dossier contredisent l'accusatrice manam libération génne na ñetti éléments yo xamanteni ñoy contredire qui di accusatrice du ken ku dul ex ministre Sénégal Fatima Dione manam lan moko contredire dans cette affaire, trois éléments du dossier contredisent l'accusatrice. Il s'agit de ses propres contradictions, des témoignages d'Albert Diatta, la Miss Sénégal 2019, de l'exploitation dimanche de vidéos de surveillance. Le journal informe que les enquêteurs ont envoyé leurs conclusions au parquet sans avoir pu entendre encore Ney Fatima John. Elle est portée disparue. Depuis que la police lui a demandé de transmettre un certificat d'accouchement ou l'acte de naissance de l'enfant qu'elle prétend avoir eu de son viol. En outre, a souligné la même source, la Miss 2020 a été invitée à plusieurs reprises à accompagner son successeur, mais chaque fois sa mère déclarait qu'elle était indisponible plus malade. Il y en a plus les images des caméras de surveillance de l'hôtel dans lequel serait déroulé le viol en question. Radisson de Les enquêteurs n'ont aperçu dans les vidéos aucun homme entrer ou sortir dans la chambre dans laquelle dormait Ndaï Fatima John le jour des faits présumés. Une conclusion renforcée par les déclarations d'Albert Diatta, la Miss Sénégal 2019 qui était avec Fatima John lors de la fameuse soirée, jure avoir dîné et passé la nuit dans la même chambre avec cette dernière. Elle assure que jusqu'au lendemain, personne n'est entré dans la chambre d'où elles se sont sorties en aucun moment. Pour les enquêteurs de la sûreté urbaine, Ndaï Fatima John a eu un enfant d'une relation consentie avec, avant de disparaître. C'est pourquoi croit-il savoir et refuse de communiquer son certificat d'accouchement ou d'acte de naissance du bébé s'il existe en tout cas nous avons maintenu ni nañ ko enquêté bi enquêteur yu sûreté urbaine bouclé enquête bi dit Fatima John, première fois biñ ko entendre dañ ko certificat xale bi y yorul certificat xale bi de xamul déclaré wu ko loolu mën nañ ko ko nangul ñu certificat d'accouchement wu boobu ba tey mënul fexe ba indi certificat d'accouchement bi certificat d'accouchement nag xale bi am baay xale bi ñàkk am baay hôpital boo mën a wasinee clinique boo mën a wasinee dispensaire boo mën a wasinee balaa ngay génn dispensaire bi dinañ la bindal certificat d'accouchement Fatima Dione kat ñëw na fi bés sàngam am na fi doom bu jigéen bés sàngam am na fi doom bu góor bés sàngam doom bi mi ngi judd heure telle minute telle seconde tell doom ji ba mu juddoo bañ ko pesé ñu ngi fekk tant de kilos ci moom doom bi bu muy ñëw indaale na bakkan doom bi bu muy ñëw indaalewul bakkan loolu moom hôpital boo dem da koy am mais ginnaaw enquêteurs yi bi ñu laajee Fatima Dione loolu boobu ba tey kenn gisul Fatima Dione gisuñu ko réer na ci nature Albert Diatta bi mu bokkaloon néeg bañ ko laajee waat na ne guddi boobu moom ak Fatima Dione ñoo bokk benn néeg te gisul benn góor dugg gisul benn góor génn Albert Diatta boobu nag moo nekkoon Miss Sénégal 2019 moom moo jël ko moo jël couronne bi jox ko kii di Fatima Dione ginnaaw loolu enquêteurs yi dem nañu ba jël caméra de surveillance hôtel Radisson Diamniadio ba ñu xoolee xool nañu yëpp gisuñu benn yoon bi nga xamante ni góor dugg na ci néegu Fatima Dione donc seen conclusion lan la Fatima Dione su dee ëmb dafa jël ëmb ci relation boo xamante ni daf ci ànd ak sagoom ak ki ko neex foofu la ëmbee en tout cas jamono ji ñuy wax ak yéen affaire u Fatima Dione Miss Sénégal bi taxawoon ci Sénégalais yëpp ne dañ ko violé man Seydina Tange Tandian ma défendre ko ci plateau yëpp mami ko défendre ko ci plateau yëpp jàppale ni ko dafa nax askan bi la mu wax ak lu méngoo du benn ndaxte su dee dañ la violé suñ la convoqué da ngay ñëw taxaw ndaxte nee nañu même couronne bi moom moo ko waroon jox Miss 2022 mais depuis boobu suñ ko woowee moo ko yaayam ak dañuy naan Fatima Dione daf feebar lu ñuul si soow bi nak ñom ñoko xamul ñom ñoko wax koy lim comme limay wax rek ñun lépp lu ñuy wax rek ci ay fee lañ koy tek fee ñu ko tégon nak motax tay bi affaire du tourner ñi indi indiwaat leen fee bi en tout cas ki di Fatima Dione bañ ko wowe batay ñewul indi wul certificat de naissance indi wul certificat d'accouchement enquêteur yi nak pare nañu seen enquête jël nañu dossier bi débal nañ ko procureur légui nak la ci dess procureur moy juger ñu xam fu wànnante ni mu jëggatam de lampita thank you